yee asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci sa tur ak sa sant leen ziar di leen màggal di leen ndamoo leen tiitaroo di leen bëggee bu wër di leen wax ni dafa am waxtu boo xam ni dañ naan waxtu wax la am wax boo waxtu boo xam ni dañ naan waxtu jëf la yaakaar naa ni lu ñu waroon wax yépp wax nañ ko fi lépp jamono ji ñu tol nii wax daf fi jeex wane suñu ngóora mo fi des wane ni ñun luñ doon wax yëpp lu gëm la wane ni ñun luñ doon wax yëpp bu desee lu dul bu lu dul wane ni ay góor yàlla lañ wala ay jigéenu talaatay ndeer lañ waxtu woowu moo jot nag waxtu woowu moo jot moo du waxtuy wax waxtuy jëf la fu mu ni li ma doon wax lu ci bari fu mu nekk nii koy jëf koy jëf nan Mangi def le maximum pour djema alerter sama wa gox sama wa koñ sama ce que buñ di bi sama deuk bu fa dess des ci ñi taal ñi man fu ne ci loolu la tolo réseau dajale ay boy yu am fit yu dëgër dajale len sama mani dugal nous tenir le maximum de cocktails molotov, de bouteilles, d'essence et de tout, et de préparer à toute éventualité, déclencher les hostilités. Man, fi me dek, fi baye ko, sama gox, baña des ginnaw. Fu nek ni, wax mom dafa jeex. Amutul luñ fi waxati. Kuy wax ne len ko shut the fuck up. Tejal sa gemiñ, wax jeex na, wax jeex na, jëfa jot, jëfa jot. Fu nek ni, li fi jot mom moy jëf. Ousmane Sonko duñu gëna goré. Lutax duñu gëna goré ab nit la comme ñun gis nga nit da ngay goré wet gore wetilu ko gore nit lo comme ñun am bëgg-bëgg am ambition bëgg défar Sénégal di xol Sénégal mu koy metti di xol Sénégal ni ñuy sàccee alalu réew mi di rawale alalu réew mi di caxat-caxate alalu réew mi mu xol xamni li day du yoon du normal mu indi projet tek ko pour le Sénégal pour l'Afrique et la diaspora donc Ousmane Sonko la personne de Ousmane Sonko incombe peu

ñu sétanon nonu noonu maam ya sétanon lolu seen sët yi duñu muk nangu muk muk mukk mukk mukk ñuy di rendi ko xamni ñun dañoo décider ne koku jusqu'à la souveraineté nationale dinañ ko yobbu ci kaw dama ne ngeen taxaw taxaw leen ngeen farlu ngeen fas jom ngeen fas jom wax ji mo jeex dama ne kep ku sa yaay jur ngay nit ku baax kep ku sa yaay jur nga bëgg Afrique nga bëgg Sénégal dama ne jogol taxaw tem tem li nga xamni pour révolution parce que révolution day am waxna len ko waxati len ko fu nek ni bu len nangu diversion li am Sénégal musul am barke alcorane musul am ci kaw souf yalla bu mu soufam si bu ko woro ni Sénégal dina am Sénégal dina am ay xat yu koy jité di ca def lu lu lu day ni yalla du défar Sénégal kon Sénégal du am ci ak parce que lu ko ëpp lu trah trahison askan Sénégal moko def justice su doomu xaraamata njaay bu gëna extraordinaire ci justice bo xamni sagal saaga ndayam foo tollu ah moom mooy bu Sénégal bi musuma gis justice bu melni c'est la première fois dans l'histoire du monde l'histoire du monde mu am lu ñu procès bo xamni ni moy mooy chambre criminel ñuy jël ay nit di leen juger di leen atté sans sans avocat sans avocat musul am dans l'histoire du monde loolu musul am dëkk doomi xaraamata njaay la am dëkk bu ñu respecté wul doomu aadama yi la am loolu Sénégal la donc kenn mënul gis loolu di taxaw naan dangay ngay werante sax wala da ngay wax les procès ba amoon dama ne dinaa leen xamal benn mbir dama ne seen am monde bi buñ ko créé ba léegi bu fekkee du monde jungle monde boo gis dama ne bu fekkee ne chambre criminelle la mooy cour d'assises même boo amul avocat dañ la war a jox avocat mënuñoo juger chambre criminelle duñ joxuñu nday xadi avocat dàq ay avocat di juger ay nit di ba suba ba guddi benn nit taxaw di wax di accuser ay nit de viol te indiwul benn preuve bu gën a ndaw dama ne loolu bu fekkee ni yéen mën ngeen ko seetaan yeewu de dox seen soxla c'est parce que doo leen gor man maa wax loolu dama ne bu fekkee mën ngeen seetaan yéen Macky Sall ñëw teg procès ñëw di trahir di jël ay nit di leen arrêté criminellement criminellement criminellement te amuñu sax avocat ñu bafoué seen droit ngeen di yeewu di ko dox yéen ngeen ciy dox yéen ngeen ciy dox di yeewu di ci lekk di naan ma xam ne yéen doo leen nit yéen ku leen jam deret du tox ngeen toog di ko seetaan yéen yéen yéen ba bañ bañ leen di wax naan jóg leen ba ngeen wax dama ne sama dama ne bu ndox tuuroo an mbaqay des fii amatul luñ fi werante Ousmane Sonko laa leen wax lu laar nañ Macky Sall da koy ci kaso bi Macky Sall maa ko wax da tek ci kaso bi Macky Sall nee na da ci kaso bi encore une fois Macky Sall nee day tëj Ousmane Sonko ci kaso bi da koy tëj ci kaso bi waxuma la ay da koy la ko wax nee ko da ci kaso bi ñay defar kaso ba ñay defar kaso ba chambre bu Ousmane Sonko wara nek fele ci ca kotan ña ngay defar kaso ba ñay ngay kasso ba ñay jamono jini bo fa deme ñay ngay grillage ñay ngay pour Ousmane Sonko lañu ñuy dama ne ngeen taxaw tem taxaw leen ngeen fas jom fas fulle

fas leen fulla fas leen fayda ñi gënuñu leen ndey gënuñu leen bàyyi accaparer ressources yi di def lu leen neex dama ne Macky Sall na xam ne ñun on est déterminé xam ni dina rey Sénégal ba mu jeex tàkk rey ko mais du ñu seetaan mukk benn fan benn fan Ousmane Sonko dugg ci kaso bi ñuy dund ñun duñ ko def ñun duñ ko def Macky Sall jamono ji pare nañ dossier boobu pare na affaire Ousmane Sonko ne nañ waxatuñ ko 80% d'entre eux sont Information, Macky Sall Ousmane Sonko Le premier Macky Sall de Ousmane Sonko 5 ans de prison, 3 ans de prison ferme, 2 ans de sursis. 3 ans de prison ferme, 2 ans de sursis. Il y a élection sans Ousmane Sonko. il y a un thème. Il de 5 ans, il y a un thème. Il y

ba Fofu, vous di nga ko lem ba rongo tok ci kenn xeebul li gën sor def macha allah ngalaama way dama challenge di nga ginaaw fofu capital bi Fofu le lepp ne gis ngeen gaay ni ñuy drainer ay policiers ki gendarme ak parce que c'est la capitale qui parle quand la capitale parle toutes les régions se taisent quand la capitale parle toutes les régions se taisent bu capitale jógee ñëpp peut té Ndakaaru Ndiaye jël jóg jóg lolou motax Ousmane Sonko tém Ndakaaru parce que xamné ni Dakar moko ko parce que Dakar bu déclenché woo ñëpp déclenché wu bu Dakar taxawé ñepp taxaw ak lo mëna a résister du feñ donc Ndakaaru Ndiaye jël jóob nak mom mo ayé té Ndakaaru Ndiaye jël jóob bu ayé Sénégal mo ayé donc toutes les forces se convergent à Dakar parce que c'est à Dakar que les grandes décisions faut se tiennent faut la ñuy paquetee foofu la ñuy tëjee foofu la ñuy toroxalee foofu donc alerte maximale bi Ndakaaru Njaay la donc Dakar mom bu len kenn xeeb man de xeebu ma leen ndax xamna naa bu Ousmane Sonko dugal ci kasso bi Dakar tax ñoo génnoon ñoo don tal ñoo don boyal ba région yëpp di suivre Ziguinchor suivre etc etc donc Dakar mom c'est le cerveau Dakar mom moy lo xamni bu paralysé wu lepp paralysé wu Dakar bu yënguwul dara du yëngu lu mën yëngu tam du feñ feñ nu wara feñé donc gàcce ngaalama Ndakaaru Njaay ginnaaw bu ñu sante waa Ziguinchor Dakar mom c'est le cerveau te cerveau moom mooy orienté doomu aadama ñeneen ñëpp ay loxo lañ ay tànk lañ ay yeneen ay matière yenn euh, lu mu tudd ay bagage lañ ci nit ki mais dakaar mooy cerveau bi et le moom mooy nit donc gàcce nga laa ma Ndakaaru di leen wax ni taxaw leen taxaw leen nekkuñu sax ci ay troisième candidature troisième mandat dañ ne dañ na waxoon daal ñun ñoo gëmloo Sonko ni ñun duñu du dee ñuy dund du dugg ci kaso ñuy dox am sañuy liberté bu ñu naan entre guillemets nañu taxaw temm pour loolu man nag ay débat ay lu amoon ci tribunal intéressé wu ma lu amoon ci tribunal mission la woon jox nañ leen ko depuis un an wax naa leen lépp lu ñu war a am ci tribunal ba am na donc ngeen xam ni kon ab feuille la bu ñu bind teg ni ma leen waxaatee nii ne leen loolu la ñuy def pour tëj Ousmane Sonko loolu moo am loolu moo am léegi nag loolu lañ bëgg loolu lañ bëgg loolu lañ décidé bu amul rek moom mooy sénégalais yi révolutionné wu nañ révolté wu nañ def nañ lu ñu defoon parce que usman Sonko depuis deux mille vingt et un ko waroon jàpp. sénégalais yi taxaw fippu wane seen bopp ndem farata la Macky Sall reculé Macky Sall ñëwaat na chercher le naturel il revient au galop nee na deux mille vingt trois bii munul weesu te Ousmane Sonko dugg ci kaso bi. te bu duggee ci bés bu ci affaire yi nii nga xam ne seen procès bidon bi nga xam ne tekkiwul dara nit accusé nit de viol munul indi preuve bu gën a ndaw même photo mënu ko indi même photo mënu ko indi. dara mënu ko indi et cetera et cetera ña ngay seen biir jot naa seen i audio ña seen biir moo tax mu ma leen gisee man mu intéressé wu ma du leen seetaan du ma leen déglu ay kàcc lañ ay fenkat lañ ay manipulateur lañ moo man du ma déglu parti bële man je suis concentré focus si sama combat nañu defee seen live yooyu ngeen leen di seetaan noonu la ñuy génnee di saagante nday yor na ay ojo xaw ma Californie muy saaga nday Adji saar Adji Sarr xaw naa ko il paraît xaw ma live ba ngeen defoon bu ngeen paree da ngeen ma doon jëw nangam nangam maa ngi audio yi donc yooyu mais ñooñu intéressé wuñ ma tekki wuñ dara ci réew mi man su du ma suufeel sama bopp bay dem di jël sax ay mbirum ay Kaliphone ak Adji Sarr ak ñooñu ay caga bordel lañ bu góor bu jigéen nawloo wu ma leen duñu wax ma wax du ma leen ton du ma leen lijjantiwu ma leen c'est-à-dire am valeur quoi man dama am ndayam valeur mënu ma toog fii di wax ay waxu Adji Sarr caga caga bordel bu salte boobu mënu ma taxaw di wax ay waxu Kaliphone ak keneen ak keneen dama ne ngeen taxaw dama taxaw gis nga monde bi yëpp ak may xool xam ne ku xool xam ne kii bi dafa mer aduna bi yëpp ak may xol maa ngi dundul aduna bi yëpp a si ak di dox sen soxla ngi wax sama xol ngay parce que lumay dund daf daf ma naqari vous Vous dund taxaw len nak taxaw concentré wu focus sur l'essentiel. bu len moytu len don ay tiaga tiaga moy ubi sa fu ne ku nekk di la dëpp ka dëppi ay nit yu tekkiwul dara ay doomi xaraamata njaay di def live di def ngeen di leen di seetaan ñu leen di saaga ay ndey di wax di wax lu ñaaw di saaga seen i leader di saaga seen i patriote loolu ku ko ku ko seetaan moom mooy doo nit ku ko seetaan dooy nit man lu bëri mi ngi fiy jàll duma ko xool li lijjante wu ma ko parce que intéressé wuma ko Adji Sarr def na live ba jeexal tàkk seetaanu ma ko xamul lu mu xamul lu mu sol barke alxuraanu karim beneen doomu xaram jooju nekk xaw ma Allemagne ma def na laaj xaw ma lu mu so booy tam man xool usman Sonko laa nawla woo dama ko nawla woo ba nga xam ni mënu ma woo ci dara te du fa taxaw dama fay njëkk parce que man maa ko yóbbu fu mu nekk Ousmane Sonko bu amee fit tey bu amee li mu yor nii bu parce que dafa ñoo gëm dafa gëm suñu wax dafa gëm ne du ñuy traite ñoo ko gëmloo boppam mu gëm boppam ñu yokk ko doole donc duñ ko bàyyi ba ultime phase ñu koy trahir di daw duñ ko trahir duñ ko def dara ñuy taxaw fu mu taxaw la ñuy taxaw bu dee ñu dee bu dundee ñu dund bu duggee ci kaso bi dañuy dugg ci kaso bi donc ñuy alerter tout le Sénégal toute l'étendue du territoire national. taxaw leen taxaw leen taxaw leen dama ne waxtu wax jeex na waxtu jëf moo jox Macky Sall dañ ko ne Ousmane Sonko bu bu keneen da koy tëj barke alxuraanul karim du dund moom du dund man maa ko wax dama ne boo fi Sonko jëm leen ko tëj. jëm leen ko tej da leen leen ko tej leen ko dinañ dakar seen dënn nday ba ngeen ba ngeen tembere ba ngeen témbéré dama ne yow Macky Sall yow la wax ak say ñooñ dama ne jëmal rek nga ne da ngay tej Ousmane Sonko kala naxa mo ubbi tata nday dinañ dakar sa nday ba nga polombeew dinañ kat sa dobbu nday ba nga ba do Sénégal do fi tok yow jëm ko dinañ lak nday ba lak nday sa kër lak nday ba lak nday palé bi ñu ngi lay wax lo demal jëm jëmal jëmal jëmal dem jël Ousmane Sonko yow bu dee yow góor nga yow bu dee yow ay dambal nga yor Macky Sall kattal sa lëfal nday ne da ngay jël Ousmane Sonko dinañ ubbi sa data nday la wax yow do dara tapet bu carte sa nday nga yow ma xaram bi do fi tok te bu lëfal ndaay ko Ousmane Sonko man ma la wax nak ma ngi ni di ko dama ne dinañ deug sa nday la wax senegal yëpp lañu ñu moxoñe ndayam ñu ci dara na pu taxaw dinañ moxoñe nday senegal xolal pende poussière kal na xamoo carte ndayam la wax yow da ngay da ngay dëmm do ma xaram lal Ousmane Sonko lal ko rek nga xol da nga xam ne ñoo la gën a jàkk ñoo la gën a tàng ndayam yow yow loolu loo naan la ñu ñu géex ko naan ñu géex ndayam yow doomu xaram doomu caga bi imbécile bi yow nga day ci pasame la dictature ici gars yi taxaw leen sama gars yi xoolal man loolu laa am pour wax ak yéen fu mu ne nii sama xol dafa fees sama xol dafa naqari aw ma lu may xaar fu mu ne nii man pour man ay góor ngeen doon leen ay góor yàlla dama ne Macky Sall le premier bés bu tëjee Ousmane Sonko nañ katt nday Sénégal laa nañ taal ndayam ba mu jeex tàkk Tac, tac, bouny baye tac, dara bu ñu na ñëpp un nañ dans les rues ay millions je je parle des millions dans les rues là la wax Sénégal taxaw leen ñëpp gor jigéen mag ndaw dama ne de ñu nangu di dund di seetaan di Ousmane Sonko di wax ay troisième candidature di wax ay waxu dialogue national dinañ toj cottu ndaayam laa la wax Macky dinañ Dakar man maa la wax loolu eh taxaw leen gars yi Kaolack Diourbel Saint-Louis Dakar Podor Matam partout ne Sénégal yëpp génn taxaw ne ñun duñu seetaan di dund doon ay gor Macky Sall di tëj Ousmane Sonko ci kaso bi da pare di dox ay am naan day def ay luñ naan dialogue politique di wax ay waxu troisième candidature luñ ko cottu la fal ndayam nangu duñ ko tot tot ndaayam nangu man maa la wax loolu yow Macky Sall te di nga xam ne yow ci affaire ak ay góor yàlla yow gënoo katt la fal ndaayam nekk kenn góor yow ñu ngi la koy wax yow ñun on pour ne pour l'instant nii

toj ndey kaso yi gën a nday ñëpp di nga gis loo musul gis jéem ko man maa lox loolu man je m'en fous de tes juges là kat seen la fa nday juge caga yi dëgg sa nday ah Abdou doomu xaraam yi nga xam ne Abdou Karim Diop bu mu violé kañ la Abdou Karim Diop am na doom bu mag boo xam ne mu ngi France di jàng ko góor bu mu defee bu mu nekkee terminal la biiral yaayam dafa violé yaayam Abdou Karim Diop bu mu jëlgee yoof yoof bu mu dëkkoon am fa appartement ñaata gel la fa la Abdou Karim Diop bi mooy wax doomu xaram bi nga xam ne moom moo fi nangoon jabaru Tony Silva Abdou Karim Diop boobu ngeen di wax doomu biddo bu katt la fa ndaayam boobu noonu dëkk kaw la ñu xam ko dëkk coofak yaayam nekkoon ci dispensaire municipal bu Médina Baye kooku moom mooy naan day day day jox Ousmane Sonko 10 ans dont 5 sa la yow Macky Sall yow Macky Sall koo katt la fa ndaayam yabew kan nga lëfal ndaayam yab yow Macky yow yow Abdou Karim Diop moom moo war a jugé kenn naan ay 10 ans Abdou Karim Diop yow xam nga bu baax xam nga ñu xam nañ la doo lëfal ndayam terminal nga biiral li safal jooj nga biiral nday benn xale da ko koo violé doomu dajjaw ndaayam bi juróomi jigéen takk nga leen fase leen munoo téye jabar sa sa téye nga fi am premier jabar ñaareel bi nga dem nangu jabar Sonia Silva bi lekk xaalisam dàq ndayam elle t'a fait vivre l'enfer on sait on connaît ton histoire ku ñaf sa nday nga yow mais xam nañ la yow Abdou Karim Diop bu dëgg ndax ay doomi xaraam rek ay góor jigéen ñoom ñoom la ñuy jël ñoom ñaan naa dañuy jugé Ousmane Sonko ak ay caga bordel Abdou Karim Diop di doom biddo bu carte la fal ndaayam doomi xaraam ñoom ñooy jugé waate fii ay ñoom baaxum góor jigéen ñu dem Lamantey Beach di fa réunion buukale ne dañuy tëj Ousmane Sonko Lamantey Beach lañ nekk di réunion ki nga xam ne mooy Abdou Karim Diop baaxum Hamadi Diouf ak ñeneen ñi ngi toog def seen réunion ne deux Ousmane Sonko trois ans de prison ferme plus plus 2 ans sursis 1 milliard à payer nangam nangam ci juge jugement d'assises chambres chambre criminelle boo preuve amu ci dinañ ubbi seen data nday nag yéen quatre seen lafal nday moo jot danañ teg seen cottu nday ngeen xam ne yéen lépp dëgg la bu dee seen baay moom moom Sénégal dañ ci xam dara bu dee yéen seen baay moo sañ seen dañ ci dinañ kat seen nday yéen ak Macky Sall la ñuy yemale danañ lakk seen nday seen baay ak seen yaay yëpp boyal seen nday seen doomu xaram yi yéen a di jugé violeurs a naan da ngeen di jugé waate Karim Diop mooy taxaw di jugé baaxum góor jigéen mooy jugé Hamadi Diouf naan ko du mooy jugé di tëddee bay tëddee mbindaanam ba jabaram bàyyi ko fa dem yoonam dëkk dem Rufisque yóbbu ñaari doomam mais dañuy kat sa ndayaa yow Macky Sall yow sa toonu nday fuck you gars yi taxaw leen naa ah, na ñëpp taxaw wax bëreetul na ñëpp taxaw lu ñu bax ñu ngeer ko bu ndox tuuro an mbaqay des yéen dofu leen sax kala na xam moo katta ndayam yéen da ngeen di dof dof lu dofu leen ñoo leen tëj leen tëj leen ngeen xool ba seen papa yi di dund moo katta ndayam ba seen yaay di am jàmm moo tot tot ndayam ba ngeen di am jàmm ci réew mi tëj leen ko da ngeen bëgg a taal Sénégal ay sa ñëw leen taal leen ko kat fépp la ñuy katt ndayam koptal molotov fépp bu laajee jël arme dañuy jël arme di tiirante ndayam ñun ñëpp bañuñu ci dara nañ taxaw ba bu ñuy bëgg premier dakaawe bu ñuy dakaawe nañ dakaawe nday centre yi jaay arme yi ñu ngi ndakaaru ñu Sénégal premier attaque centre yi jaay arme yi la ñuy kat seen nday daaj lépp génn amu eh sama gaay dama ne bu fi kenn génn naan da ngay jëndi ay da ngay jëli da dem lakk ji pour jëli lekk wutuñu lekk lekk jeex na jamono ji du jamonoy lekk du jamonoy naan tolluñu ci jamonoy lekk jamonoy dajji nday armement yi la génn ko dem yóbbu dem kattante nday comme ñoom loolu lañ ñu soxlaa comme ñoom nee na day tëj Ousmane Sonko waxtu wi nag du jamonoy lekk bu leen dajji leen magasin yi bu leen fa dugg naan da ngeen di lekk taal leen magasin yi taal leen nday magasin yu français ak yëpp leen sa nday def leen leen doomu taal man naa ko wax bu fa kenn dugg di wut lu mu lekk nañ dem ci armement yi ñuy jaay arme dajji nday génn arme yi classe ni ko fi kattante nday ratatatatat bu policiers yi di daanu gendarmerie di daanu bal yi comme ni ñuy dóoree ñu leen koy dóoree taxaw leen ci loolu dama ne dama ne lañ génn wane benn visage bu musul am Sénégal ñu gis ay nit yoo xam ne dañ naan ñii du ñuy nit dañ leen wan ne ñun ñooy gaynde dañ leen wan ne ñun dañuy soppeeku dañ leen wan ne ñun mun nañ nangu lu ne mais leader bii di Ousmane Sonko bu ko jël tëj ko ci kaso comme ni ngeen def Mamadou Dia comme ni ngeen def Cheikh Anta comme ni ngeen def ñeneen ak ñeneen du fi am ndayam du fi am dama ne du fi am dañ soxlawuñu lekk soxlawuñu naan bu kenn dugg ci Auchan di wut loo lekk tàlle nday lépp ñu génn dem dajji nday mangasin yi magasin yi am armement mi ngi fees dal ñu ngi foofu noonu génn kattanta nday fatal ñoom bu ñu tiiree ñu sànni na nday hélicoptère molotov tiire seen nday bal fatal comme tout le monde jël bal yi chargé tiire jeex na tàkk bu ñu musa nangu loolu loolu mu bëgg a am nii bu Ousmane Sonko ci kaso bi ñun duñ ko nangu duñ ko nangu laa la wax nañ ci gar sañu bakkan nañ ci teg sañu bakkan man maa leen wax loolu foofu laa yem ak yéen donc soyez prêts gars yi saa yu ma génnee wax pour wax leen ni ngeen préparé wu la préparé wu leen duñ fi tëj nday Ousmane Sonko duñ fi lëfal ndayam tëj Ousmane Sonko man maa la ko wax bu ñu naree tëj ñu katt nday town bi ñu indi fi guerre civile one love jaajëf ena maawut